waatee buñ dellu si waatee. nii kay booy duñ ko dugal. waaw nii rek dañoo sonn. waaye prison privée. dañu sonn. waaw. on a vécu des a atroces. yoo war a liggéey war a am. surtout tey. chef dañu man maay euh, ki ñu dénk wàllu maanaam emploi. Opération qui est à major au commandement de la gendarmerie nationale. du 26 euh, novembre au 28 les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale ont effectué un transport à Wakam dans le cadre d'une enquête pour un vol de scooter. À cette occasion, ils ont retrouvé sur les lieux où se trouvait le scooter volé trois autres scooters et plusieurs scooters en pièces détachées, euh, étant le produit de vol qui ont été également déclarés au niveau de la section de recherche. Mais de façon incidente, ils ont également découvert sur les lieux un lieu de détention de plusieurs personnes visiblement euh, séquestrées et soumises à des actes de maltraitance, voire de torture. Ces personnes étaient en majorité des jeunes âgés de 17 à 42 ans. Ils souffraient visiblement de malnutrition et plusieurs d'entre eux étaient blessés. Ils ont été donc pris en charge par les éléments de la section de recherche qui les ont évacués au niveau du service de santé de la gendarmerie nationale situé à la caserne Samba Diallo et à l'hôpital principal de Dakar avec l'aide du médecin-chef de la gendarmerie nationale. Poursuivant leurs investigations, les éléments de la section de recherche se sont également rendus sur trois autres sites de détention identiques à celui de Il s'agit d'un site qui est situé à Guédiawaye, où 213 personnes ont été également retrouvées. Un autre site situé à Malika accueillait également 22 victimes. Le dernier site situé à la zone B accueillait quant à lui 100 victimes. Euh, parmi ces victimes, il y a, il a été dénombré sept mineurs, mais également une jeune fille. Il faut préciser qu'au cours de leurs investigations, non seulement quatre scooters volés ont été retrouvés, mais également euh, un des géoliers, donc des victimes que je viens d'évoquer, a été retrouvé euh, avec six paquets de chanvre indien. Il a cependant réussi à prendre la fuite et il s'est réfugié au domicile de Serigne Modou dont le fils Ahmadou Mbaké l'a finalement ramené à la section de recherche suite à la demande insistante du commandant de la section de recherche. Il faut donc signaler que les éléments de la section de recherche ont ouvert une enquête pour des faits de maltraitance, de traite des personnes, mais initialement, leur enquête portait sur un vol de scooter. Ils ont également ouvert une enquête donc, pour trafic de chanvre indien donc suite au champ indien qui a été retrouvé sur l'un des géoliers. Donc l'enquête est en cours sous la direction des autorités judiciaires compétentes. Le nombre de personnes arrêtées se chiffre donc à 43. Donc parmi les responsables qui ont été retrouvés sur les différents sites. Et le total des victimes se chiffre à 353. Et comme je le dis, donc l'enquête se poursuit sous la direction des autorités judiciaires compétentes. Euh, ci diggante euh, ñaar fukki fan ak juróom ben ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci wéru novembre bi ñu section de recherche gendarmerie nationale euh, dafa yónnee won ay ndaw. Euh, ci wokam donc cité Mamel euh, ngir euh, ñuy seet benn scooter boo xamante ne nii borom dafa ñëwoon déclaré ne dañu ko sàcc ci section de recherche bi ñu fa demee nag fekk nañ fa scooter boobu nga xam ne dañu ko sàccoon ak yeneen ñetti scooter yoo xamante ne nii dañ leen sàccoon seeni borom déclaré ko ci section de recherche ñu leen di seet fekk nañ fa yi tamit euh, yeneen scooter yoo xamante ne nii euh, dañu ko def ay pièces détachées euh, ci yenn responsable yi nekk foofu yi tamit am na ci koo xamante ne nii dañoo fekk fi mu nekkoon ay paquet de chanvre indien lu toll ci mooy yàmba lu toll ci juróom-benn wante kooku dafa jot a daw dem laxu ci kër Serigne du Kara Euh, nga xam ne doom ji euh, ginnaaw si moom moo ko delloo siwaat jàpp ko indi ko section de recherche ndaxte commandant de section de recherche euh, daf ko digal ne ko nañu ko indi bi loolu weesoo ci dëkkuwaay boobu nga xam ne fa la ñu fekk scooter yi ñu sàcc ak yàmbaa bi dañu fa fekk lu tollu fukki fukk ak juróom ñetti gone yoo xamante ne nii euh, ñu ngi am euh, fukk at ak juróom ñaar ba jëm euh, ñoo xamante ni am nañ ñeent fukki at ak ñaar waaye lii yéeme ci mbir moomu mooy ñooñu fa ñu nekk dafa mel ni maanaam dañu leen a tëj Euh, maanaam di leen euh, di di leen toroxal boo gisee ñi nga xamante ne nii ñii dañu coo am ay gaañu gaañu euh, ñii feebar ba mënatuñu dara tëdd ñii boo leen xoolee sax da ngay am yaakaar ne njort ne dañoo tàggox seen sago tellement li ñu leen tëj foofu ak li ñu leen di mettital dafa maanaam wëlbati seen xelaat Euh, bi loolu amee waa section de recherche li ñu njëkk def mooy euh, daal di euh, ko yëgal procureur de la république wante yi tamit daal di leen wallu boo ànd ceex médecin chefu gendarmerie nationale ba nga xam ne ñi nga xamante ne nii dañu am gaañu gaañ wala ñi nga xamante ne nii dañoo feebaroon ñii ñu yóbbu leen ci service de santé gendarmerie ni ñu dal di leen évacuer l'hôpital principal bu Dakar bi lolu wesso yi tamit euh, en accord ak autorité judiciaire yi section de recherche di weyel ay investigation investigation ci déclaration yi nga xam ñi ñu fekk fofu wakaam mom lañ leen jox euh lool motax ñu dem ba euh dem ba Malika waaye tamit dem zone B euh, ba nga xamante ne nii euh, fekk nañ fa euh, ay gone yoo xamante ne ni ma ko waxe woon sànq ak ay mag yoo xam ne seen at mu ngi diggante fukki atax juróom ñaar ba ñeent fukki atax ñaar ñoo xamante ne nii ci même toogaan bi nga xamante ne moom lañ fekke woon ñi nekkoon wakaam mamel ci la toogaan mu am aussi ñoo xamante ne dañoo feebar ñii xaw a sax tàggoo ak seen seen seen xel euh, donc loolu moo tax euh, ñooñu tollu nañ ci lim boo xamante ni mot na ñetti téeméer ak ak ñett euh, ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen doon mettital ñoom ñoo teg ci ñoom loxo tëj leen di leen teg ay mettital tollu nañ ci ñeent fukk ak ñett ñoo xamante ne nii section de recherche daf Diap a jàpp di euh, procureur de la république donc l'ol mooy li nga xamante ne nii euh, moom moo fi euh, ci ci mbir que ak fi nga lañ donc ci télévision mën cee teg seen bët euh, mën a itamit euh, am xelaat ci maanaam euh, mbir moomu ni nga xamante nii noonu la doyewaat ñi nga xamante ne nii itamit ñoom ñoo leen ñoom ñooy responsable yi nga xam ne ñoo yore woon bërëb yooyu ñu dencoon nit ñooñu dañuy woowe seen bopp ñii commandant ki ci gën a mag ñu koy woowee colonel ñoom ñooy responsable te gis nañ ne sax euh, ki nga xamante ne euh, moom la ñuy colonel dafa am ay tool yoo xamante ne nii nit ñooñu da leen fay liggéeyloo te du loon fay maanaam loolu wax travaux forcés donc day exploiter euh, sen sen sen liggéey te du leen fay donc loolu laa bëggoon wax maa ngi leen di gërëm di leen sant. français. les personnes qui ont été retrouvées dans euh, les centres de détention de Mamel à Wakam, de Guédiawaï, de Malika et de la zone B, qui sont appelés euh, par donc, le responsable euh, des DARA de redressement, se font appeler, donc ces responsables, commandants ou colonel. Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar.